Ah, alhamdulilah rabbil alamin comme ni ma ko yàgg waxe dugg ci dara ci jàmm génn ci ci jàmm sant rek moo ñu war eh, mun nañ wax ne lenge yi àgg nañ ko joxe du tey xanaa tey lañ ko doon bind ci kayit pour wane ne depuis le 31 octobre 2020 messa euh, mission CNG bi Alioune Sarr jiite woon jeex na Euh, léegi mission CNG bi Ibrahima seen ñu xamee ko ci Bira Sène yor mooy commencé tey nag toog nañ jébbal nañ ko li fi nekkoon euh, dina leen ko gën a dëgëral euh, ci kayit yi yëpp juboo nañ ci kàddu kon nag daan rek di ko ñaanal yen bi yal na ko yàlla téye eh, xamuñ ko mën mais xam nañ ko yàlla jàppale yal ko yàlla jàppale di lancer appel nag milieu làmb coow bari na mais problème yi bari wuñ na nit ñi bàyyi gis seen bopp te gis njëriñi réew mi ñi yàlla def ministre bi boole kook ñoom pour ñu liggéey nañ xam ne tànnuñ leen parce que ñoo mun ci réew mi walla ñoo ëpp xam-xam mais yàlla moo ko dogal te seen tànn pour jàppale président Bira pour mu réussir mission bi parce que gétti xar sax suñu àndee foog mu am xar mu jiitu foog mu am xar mu ne ci gannaaw mais xar mi jiitu bu mu foog ne moo ëpp doole ci xar yi xar ma ca gannaaw it bu mu foog ne moo gën a yaafuus ci xar yi wante nag su wax jotee wala rendre compte niñ koy wax amee eh, président bi mooy rendre compte kon nag équipe bi yëpp jàpp ci gannaawam liggéeyal làmb am na fu ñu ko fekkoon am na fu ñu ko yóbbu ñoom itam ñu sukkande ko ci base boobu pour gën a yokk étage bi eh, di ñaan aussi équipe bi ñëw Hmm, yéen taskati xabaar yi jàmbaar ngeen de mais waxoon naa kenn ci seen mag yi ne leen yéen a defar làmb ji mais yéen a ko yàq yéen a defar làmb ji mais yéen a ko yàq na ngeen góor bi fan ngeen di tàllal seen micro na ngeen góorgóorlu bi seen liggéey doon luy jëriñ làmb te bañ di insister rek ci diw juboowul ak diw tàllal ku nekk micro xaste beeg yooyu ak sos yi loolu du defar dara Eh, jàppale leen équipe bii ñëw ngeen yëkkatee ndooy ak ñoom dóorandoo pour làmbi Sénégal jën kanam réew mi gën a jëm kanam ci jàmm rek soo gisee tey ñuy wax tey làmb dañu am jàmm réew yi ñu wër nekk ci xeex ak yooyu taluñ lii kon nag sunu jàmm jooju nañ góor góor lu gën ko dëgëral pour njëriñi Sénégal est-ce que wuutu Alioune yomb na wala yomb tey lan nga yëg ku mel ni Alioune Sarr di la jéebal ay lenge nga war ko wutu ci liggéey bi yomb na wala yombul ak lan lan nga yëg yow yomb ba ak ñàkk yomb dama koy dund. Mm-hmm. waaye li ma yëg ci joxante lenge bi mooy sas. Mm-hmm. am naa tool bu ma war a bay mu béy na ci waa ay waar. Mm-hmm. waaye des na pour ñu bay la des. yàlla dogal nag euh, ministre des sports monsieur Matar Ba ma gërëm ko sant ko. ne ma li def ci waar wi kaay nga bay ko confiance boobu gërëm naa ko ci sant ko ci maa ngi ñaan suñu borom ma mérité confiance ak équipe bi nga xam ne moom la ma booleel pour ñu bokk liggéey sas bi du man rek euh, xam nga ci équilibre dafa day fekk poids bi nga xam ne mu ngi war supporter pàcc bu nekk yëg ci am ja war a yenoo gëm naa ne am naa yaakaar ñu rafet njort ne équipe ma boole ku ci nekk li nga ci sa waar da nga ko ci bay euh, ma di ci kontaan ci fànn yi nga xam ne du man rek la wax ne demal nga doxal dafa ni yàgg ñii ànd leen ngeen doxal yi donc fànn woowu moo tax ma ne yan wi diis na ko président ñaane léegi diis na waaye yàlla ñu ko yàlla téel bu yàlla yàlla ko yàlla def uutu euh, ku def vingt six ans fii mhm. euh, doo xëy xëy ne waa lii de yomb na mhm. ndaxte ku am confiance 17 ministres. nga wuutu ko du yomb. mais nag yaay xam mission bi la ministre des sports jox muy Matar Ba. nga ne ministre mission bi naa koy doxal ba mu sëkk. Euh, ma gërëm ko. ndax bàyyi nag fondation. ci biir continuité bi. ca fondation bi la mu fi bàyyi. fa lay teg suma fondation pour jéem a yëkkati. ñu dem ci kanam. Mhm. dem ca kaw ak équipe bi nga xam ne moom moo fi nekk. Mhm. loolu daal mooy li nga xam ne. Mhm. xam naa ko xam ne évidemment du ma ne suma xol lay topp mais suma xel lay topp. ndax suma xel daf ma ne lii sas la mission la naka la ñuy def doxal ko ak équipe bi. naka la ñuy def ba doxal équipe bi. moo tax ba war nañoo ndaje ci diir bu gàtt. xoolaat. mercredi incha allah allah xaw ma ku la ko wax. <laughs> da ngeen da ngeen yow da donc wax dëgg yàlla ñooñu eh, bu ñu toogee. danañ xool naka la ñuy def de vraiment. Mm-hmm. lettre de bi ñu jox. Mm-hmm. ñu seet fan lañ ciy jaar. Mm-hmm. ba yegg ci délai yi ñu fixé. loolu waxul naa ko maa koy waxaat. di gërëm nag kii. kii mooy kii mooy kan nga ne. mooy Gaston Mbengue lu Don King. <laughs> Don fu làmb taxaw rek taxaw na fa. fi mu ne nii ñu ngi koy oo ci beneen cérémonie officielle mm-hmm. mais nee na ji du ma ko bàyyi kenn mm-hmm. ci laa ne ci laa bokk maa ngi ci dafa jël dafa jël engagement ne def ci jàpp mm-hmm. moo tax mu ngi monté ay combat dégg naa dégg naa day monté ay combat <laughs> dafa wéroon nee na dafa rechuté dafa rechuté wéroon damay rechuté na vraiment ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla jàppale ci chantier mu sumb amiin amiin premier vice président Maïssa Ndiaye vraiment ñu gërëm ko moom mu nekk aussi artiste te mm-hmm. artisan ci làmb ji mm-hmm. jóge région de Thiès mm-hmm. xam nga monsieur le Matar Ba ni ñi xëy na suivre ñu ko ci euh, conception ak philosophie xam nga jël ñaari président CRG duggul leen ci comité bi ñu nekk ci kaw loolu mooy que ne Dakar jóge na fi waaye également compétence nekk ci biir kaay la ñu ñëpp jàpp ci pour yëkkati làmb mu jëm kanam ñu ko ci gërëmaat di ko sant mm-hmm. ci vraiment recherche boobu mu fuyee di fuyee fuyee fuyee mm-hmm. ba gis ne ñii dañuy jox làmb mm-hmm. vraiment loolu ñu di ko ci gërëm di koy sant di gërëm équipe bi fi jógee ndaxte def nañ passation de service léegi maag monsieur le président Alioune Sarr joxe nañu documents yi liir nañ ko juboo nañ ci xam nañ ne équipe bi fi nekkoon ànd ak moom di ko jàppale liggéey na wax dëgg yàlla liggéey na ca lañ liggéey nag ñun fa la ñuy tegee suñu fondation rek pour jéem a yëkkati vraiment li nga xam ne mooy effort bi ñu soxla mooy effort national ci wàllu làmb mhm. pour ko vraiment fi mu ko fi mu yemoon ñu mhm. tàmbalee fa jëm kanam mhm. yàlla ñu yàlla dimbale jàpp amiin jàppale ñu ñëpp ñuy tàllal loxo ñëpp aussi ak lu làmb waa làmb yëpp ñu ngi leen ñaar ñu ñëw jàpp ci am nañ ay quelques sénégal yi choisir daf leen ci arrêté bi ñëpp xejuñ ca waaye kenn ku nekk muy acteur direct ou indirect mhm. nga xam ne làmb ji ñun la mhm. foo toll nga am xalaat bu rafet mhm. boo jegee Maysa Ndiaye nga ne ko Maysa ah ñu xalaat nii yenn vice président Mangade ak ñeneen ñoom ñoom eh, Isabel ñooñu ñëpp ngeen wax leen lii ak lii gis nañ ko bu ñuy réunion ci sotti xalaat ak weccu xalaat vraiment ñu xam naka la ñuy càmpare yooyu yëpp làmb ji du jeex administration du jeex du dem rek parce que day évoluer y a des faits qui viennent et qui surprennent tout le monde il faut ñu gérer ko aussi. donc loolu ñu xam ne làmb moo demee noonu. coow li bari na mais nañ tegum coow li léegi te xalaat. naka la ñoo def ba làmb jëm kanam. ok jërëjëf waaw après waaw comme dëgg na wax. c'est bon il parle pas euh, sant yàlla. Euh, julli ci yonent bi gërëm ministre des sports gërëm Alioune Sarr mi nga xam ni tey moo joxe lenge yi parce que liggéey bi Alioune Sarr def ci làmb Sénégal gépp xam nañ ci dara gis nañ ko it mais nag millier boo gis surtout milieu làmb tout le temps dana am euh, ay fa li ñu koy waxe faiseur de trouble da ciy am te kooku c'est sénégalais euh, njiit bu fi mën a nekk même ci bopp réew mi da gis nit ñi taxaw di lay yekk lu ne donc loolu sunu feebar la. mais ñun ñi nga xam ne ñoo doon jël suñuy koppar ak di ko débrouiller yi xamul fu ñu koy jëlee di ko jox seen CNG bi mu koy gérer dina ko géréel xam na ni ku ci wax dëgg jub danga xam ni Alioune Sarr ak équipe am téye làmb ji dimbali nañu ci làmb ji ba nga xam ni ñun suñu xaalis mënoon naa nax saay wala làmb ji yàqu mais ñoom ci seen liggéey ak seen njub moo indi làmb ji tey fii soo gisee tey Bira Sène le nouveau président ñemee jël xëy na su fekkoon ne keneen lay remplacer sax du ko ñemee jël mais dafa xam Alioune Sarr liggéey moom parce que moom ci comptable gestion bu njëkk bi la parce que depuis 94 mi ngi ci làmb ji ànd ak Alioune Sarr ci làmb ji donc ministre bi euh, jël na leen moom ak Maysa dafa décentraliser sax parce que ci régions yi la jëlee ji indi parce que Sénégal nag du Dakar rek Sénégal gépp la donc euh, tey ñëw nañu. def nañu seen passation de service zéro faute jàmm rek am fo nit ñi passation de service nag kenn du ko divulgué kenn du wax lu nekk ci kayit yi li ngeen di mën a sob ak di prêcher le faux pour avoir le vrai yëpp loolu mënu leen koo am mais li wóor ba wóor mooy làmb ji moom lu su fekkoon ni lépp nii làmb ji la leeree ci li am fii kon Sénégal jëm ca kanam parce que lépp lépp set wecc Alioune Sarr wane na ni liggéey bu rafet la fi def bira tey dafa ñëw pour égaler œuvre Alioune Sarr parce que dégg naa ko sax bi muy wax fondement da ngay nga teg ci kaw mais moom deful sax euh, Alioune Sarr bàyyi fondement Alioune Sarr immeuble la fi bàyyi moom kay day rénové ak di peinture rek di def mais Alioune Sarr immeuble la fi bàyyi léegi nag na ko rénové di peinture fu taxoon mu euh, fomp ko ba mu gën a set loolu lañ koy ñaan ñu ko ci ñaanal yàlla it loolu am mais daal Sénégal surtout yéen de la presse yéen yéen a war a dimbali. affaire sport ci fànn yëpp muy ci politique bi muy ci làmb ji muy feneen parce que nag su fekkee ni lu ngeen gis it bindu ko Sénégal du jëm kanam de c'est bien vrai informé c'est bien mais éduqué moo gën a baax informé parce que réew mi ñun yëpp ko bokk léegi léegi mën ngeen a gis lu yàq sax Gaston di yàq ngeen ñëw éduqué ma ba loolu defaru mais euh, tàmm rek Gaston ngay xuloog euh, Bira nga ñëw jox ma micro moo wax dem ci biraa jox ko micro ma wax loolu defarul. te ñun ñëpp ñoo bokk ndey bay sunu doom yi ñooy bëggante sëy ca duñ ci man dara donc defar defe naa moo leen war yéen ay éducateur ngeen jëkk a nekk avant ngeen war a jëkk a nekk avant ngeen nekk journaliste ñu euh, vraiment daal loolu rek lañ leen di ñaan presse bi yëpp nag moom ñoo leen koy ñaan ñoo mën a jàppale pour ñii seen seen mission ñu accomplir ko convenablement waaw euh, ban maa ngi woon foofu ci maa ngi woon foofu ci armeel yi après dem naa këram fa laa nekkoon Alioune saar xam naa ni moom ku mës nekk ci làmb ji rek def na ci loo xam ni ku feebar ku tëdd ak ku wér loolu la ma xam xam naa ni it foofa dana fa dem Bira seen na ko Alioune Sarr daan defee nga xam ne délégation la seen ku mas a génn àddina fi wala nga am naqar wala même bànneex seen g bi mësula tardé na fa dem def la mu war a def Bilal tey moo fi nekk dana fa dem ak ànd ak bi def la mu war a dafa am yeneen relation yoo xam ne du relation lamb rek moo Balla gay ak famille yu Balla gay kooku moom jarul sax euh, ngeen di laaj ay yenn yi man démb ci armée yi rek am na ku ma laaj toppama ndax bi Balla gay feebaree ndax daan nga ko man ko yow luy soon ci loolu luy soy yoon ci ku dee man ba nit ba nit dee pour ma ñëw di wax ni dama koy defar wala dama dinaa ko defar wala lu may li may su fekkee damay def lu may def fii laa koy wax ci armée te yéen loolu ngeen bëgg yéen loolu genre genre coup yooyu rek ngeen bëgg ci yooyu baaxul